jëf gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaanal Serigne Mountakha xalif général des mourides mu yàgg fi te wér di ñaanal Serigne Sidi ak njabootu Serigne Touba gépp ñu yàgg fi te ah, di sant yàlla bu baax ci jataay bii nga xam ne am nañ ko tey ci fukki fan ak ñeent ci weeru koor wi ñëw fii di doge si ànd ak bureau municipal bi l'ensemble du bureau municipal bi ñu ñëw doge si fii tey ci jumaa ji grande mosquée bi fekk fi suñu bokk yi nga xam ne ñook ñoom benn lañ muy muxaddimatul xidma bi nga xam ne ah, euh, suñ borom rek moo xam lan la lan la may Serigne Touba ndax ni ñu nosoo seen programme seenu doxalin boo koy xool dangay xam ne euh, may ak yàlla rek moo am solo waaye formation nit sax munu cee àgg loolu nag la Serigne bi la ko yàlla may. di ci sant yàlla bu baax nag ci bi ma fi ñëwee ñuy toog à 2005 mil 2005 ñuy waxtaan di former lii Abdou Lahad Ka opérateur économique rek mu nekk ci muy jóge ca sama bureau di ñëw ñu bokk toog ak xidma di ci waxtaan di seet kenn ku nekk joxe joxe li nga man jaayante ñu tàmbali ko muy dox tey di dox tey doo ba naa ne sëñ Abdou premier euh, li ma ci sama premier participant ci loolu booba ñu ngi wax man dama ne woon naa ko jéem a jël. loolu faw ñu sant leen ci gërëm leen ci ñaanal leen yal na yàlla nangu seen ab liggéey waaye ñaanal xalifa général mu yàgg fi te wér waaye di sàkku ñaan ci yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci barab bu sell bi ci nit ku sell kii di jëf-jëf ji sell ji aussi ngeen ñaanal ñu ci liggéey bii nga xam ne sëriñ bi dénk nañu ko muy l'ensemble conseil municipal bi ak bureau municipal bi suñu borom may ñu. ñu am ngërëmal sëriñ bi ci liggéey bi ndax suñ ko amee rek am ngërëmal yàlla ku am ngërëmal yàlla ñàkk ko am nga lépp kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di xamal ne rek lii moom baax na ci ñëpp war nañ cee xool ñëpp war nañ cee jàpp ñëpp war nañ koo bàyyi xel Euh, maa ngi wax sax sama sëriñ Sidi Abdou Assis premier absent di ko wax na waa war naa wax conseil municipal bi ak bureau bi ñu bàyyi xel bu baax a baax lii parce que lii dafa jaar dañ ko war a bit si tiise bu ñuy wateetu bit se ñu xam ne benn social bu ëpp doole bi amul ñu di ko bàyyi xel ci orientation budgétaire bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh